soo ngi delo ziar di len jox sen waccu way di len dalal fi ci ngor jërëjëf waaw mam Alassane saware bokku ci commission scientifique bu laayeen wa assalamu alaykum ñu ngi am mbekté ak contenté face and ak yéen fas di face yene and ak yéen ci euh, bis bi bis bu sel bi muy wote seyna ali mamou alayhi salatu wassalam comme ni nga waxe 143e wote bi nak do xolé tay ci suba ñu ko dalé Cambérène ñëw fii ci Ngor war ko fee àggali suba tamit ñu delluwaat ca yoof tëjee fa fii ñu nekk dafa doon béréb bu am solo ci yoon wi ndax seyd Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee fii la feeñee non fii fii fii sama ginnaaw ni doo xoolee am ab grotte moo fi nekk muy ñu koy tuddee xunt bi mu feeñee dañuy xunt mii nga xam ne muy grotte mu ne ruwam def na fi lu ëpp junni at mu ne gudd gu nekk mu ngi daan génn di wër àdduna bi yëpp di xool fan la war a wàcc te béréb bi euh, laata Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam di fi bàyyikoo di feeñ ci kaw suuf dafa nekkoon béréb boo xam ni bérébu ñaanukaay la woon nit ñi fu nekk lañ daan jugee daan ka ziyaar bu yàgg ba ñu ngi ko daan ñu ngi doon wax béréb bii moom mooy bérébu jullikaay musalla mooy jullikaay suñu yonente yàlla xadir ci ñi ko jàppee yonente wala wàllu yàlla xadir ci ñi ñi ni du yonente ni wàllu la am ñu ni bérébu yonente yàlla Ibrahim noonu lañ daan owe béréb bi avant Seydina Limaamu di fi feeñ ndax ñëpp xamoon ni bërëbu ñaanukaay la fu nekk la nit daan juge di fi ñëw mu doon nag te jamono yoon mu nekkoon béréb bërëb bu bu bu raglu bu làqu waaye teewul nit ñi ak loolu yëpp dañ fi daan ñëw ndax am na luñ fi sentiroon muy njool mi fi nekkoon. Seydina Limaamu nee na bi mu fi defee lu mat junni at guddi gi nekk muy wër nee na après la xool ba gis ni xeetu lebu gisul xeet wu leen ëpp sutura. seeni jigéen gisul jigéen ñu leen gën a yiw ci ak col gisul jigéen ñu leen gën a baax ci ay jikko nee na looloo tax yàlla dogal mu wàcc ci xeetuy lébu moo tax mu feeñ ca yoof loolu nag wax jooju nga xam ni li mu wax ni samaru def na fi junni at guddi gu nekk mu ngay wër dafay dëppoo ak li nga xam ni moom la li nga xam ni moom lañ waxoon ci ci moom la imaamul xaramay ni waxoon ci seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wa bi mu génnee àdduna dani dani yonente bi dani gën naa màgg naa ci sama boroom màggaay goo xam ni duma bàyyi ci biir bàmmeel ma def fay ñaari fan ñetti fan am ñu ni ñaari fan mu ni ba ma dencee soqi naa ab jéego tegu mu ni paaba teg naa ko fu soree sori ci bërëb bu sore sori mu ni daanaka ilmul xalaaix mënuñoo iktishaaf béréb béréb boobu mu ne xam-xamu mbindeef yi néewoon na ci ñu xam fan laa teg sama jéego boobu bi ma ko soxee kon li naa Seydina Limaamu ni sam fii def naa fi lu ëpp junni at di xaar day mel ni dëppoo na ak wax jooju day mel ni dëppoo na ak wax jooju parce que bi mu ñëwee dañuy mën a démb mën a tey mooy Seydina Muhammad ma feeñoon mu ni moo ñëwaat te loolu tamit lu ñu mën a lu ñu mën a lu ñu mën a dégg la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mu ngi feeñ 1883 la oote ni daan yi la mu ngi ko waxee ca Yoof wax jooju tamit bi mu koy wax mu tombeek période boo xam ni ñëpp a ngi doon wër mahdi yu ci kaw suuf bëgg xam mahdi yu fan lay feeñ parce que dañ ñu woon nitu yàlla yi nga xam ne yàlla mayoon na leen kashf dañ ni woon euh, période bi muy feeñ jigéen na nga xam ne moo tax ñëpp dañ ko doon wër Seydina Limaamu doo xoolee euh, baayam maam Alassane demoon nañ ca wuru mahdi naan dañuy defu ak jihad parce que ka fa nekk dafa woote woon jihad ñoom ñu uyu woon ba ñu ñëwee góor ga gis leen doo leen fekki diine mais diine leen di fekki ni leen mën ngeen a dellu yéen ñi bàyyi ko ndakaaru daan ni leen doo leen demee seeni soxna ñu bari ci yéen dinañ am ay tut tànk ni leen ku ci soxnaam am tut tànk na ma ko tudde man Mouhamad Ba nee nañ ñoom ñëpp bi ñu ñëwee limaamu yi bari woon nañ mais ñëpp génn àdduna ba mu def Seydina Limaam mu maam Alassane mu dund 40 ans taxaw ne ajibu daa yàlla fii ci tefesu géej gi ci Yoff lolou tamit deppok fi feñ deppok len ci waxi borom xam-xam yi do deme ci tazkiratul qurtubi imam qurtubi mu ngi fay wax dani al mahdi yanzil fil maghrib al aqsa mu ne mu ngi feñ ca sawu ba gëna sori fi sahil al bahr ala sahil al bahr ci tefesu géej janbal jabali ci ci wetu doj wi ci suñu wan kenam kon da ngay gis ni yof ngor yep ben béréb la kon wax jooju da ngay gis dafa dëppoo ci suñu sang Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee tamit wax ji waroowul ak jëf ji jëf ji dafa uyu wax ji ci côté yëpp ndax tey doo xooloon ulamaul aqida ñiy yëngatu ci wàllu pas-pas dañ ne ndaw du taxawee ni yàllaa ma yónni mu ni pour ñu xam ndax yàllaa ko wala yalla yoni wuk mu nañu xool ndax na def kéemtaan wala manta def kéemtaan nee nañ kéemtaan mooy nattukaay bi borom xam-xam yi loolu la ñu wax moom la ñu wax naan fulaanun idda an nubuwa wa kaama bi mujiza ida qaama bi mujiza fa huwa nabi koo gis mu woote ak yonent du jugee ci koo gis mu woote ak yonent ba pare def mujiza mu ne kooku jàppal xam ni ndawal yàlla la lu la rëccee ndawal yàlla rëcc na la boroom xam-xam yi loolu lañ d'accord ni moom la ñuy xàmmee ndawal yàlla mais mu bëri na feeñee tey bëri na ci doo demee ci dalaa'ilun nubuwa ci téere yi nga xam ne dañuy wax ci yonente nu muy mel wala nan lay feeñ wala seeni jikko da ngay gis ni lépp bépp jikko boo xam ne melal nañ ko ab yonent ci lu baax wala bépp kéemtaan boo xam ne wax nañ yonente def na ko dangay gis ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam def na lu mel noonu ku ku ko bëgg ku ci bëgg am xam-xam boo xam ne gën na yaa danga mën nga dem gëstu téere bu ñuy wax bushra al muhibbin wa tayqiizul jaahilin borom xam-xam bu mag moo ko tudd moo ko bind bu tudd Cheikh Makhtar Lo mu ngi ciy def histoire Seydina Limaamu yaakaar naa képp koo xam ne rek mbiru Seydina Limaamu ñor na la mën nga dellu ci téere boobu wala nga dellu tamit ci jàngaleem ya muy xutbaam ya muy irshad ibadillah ila sawaab doo ko fa doo xoolee ñaari téere yooyu nga analyser ko xool yeneen yi nañ lañ leen daan melal di nga xam ndawal yalla deug mo feñon fi te mission bi nga xam moko taxono juk joxe nek ci anam ba jere jef mat jërëjëf hmm? jaaw jef ñuy wax rek vraiment di contane ak am mbekté euh, ci and ci li ngeen ñew pour participer ci yoon ci wote bi nga xam seyna limamu wote naka di ñaan mu doon wote jam ak salam li ci ay xéewal mu defal ñuko ñun ñep ñu nit ñu motali wo euh, ñaari fan yi ñukay dundal ñu dundal ka ci jam vraiment yàlla lépp lu ci ab yool mu defal ñu ko fay ñu ci ñu ne jërëjëf